coucou allo Sénégal asalaamaaleykum waa team Virginie tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci seen série boobu nga xamante ni yéen ñëpp moom ngeen doon xaar muy Virginie épisode 22 ñu daal di dem ba ca hôpital ba gis nañ ni Virginie daal dina annulé loolu nga xamante ne mooy voyage bu mu waroon def foofu ca Sorbonne defu ko parce que d'après elle dafa yëg accident bi loolu bett na Idy lool parce que Idy ne s'attendait pas à ce que Virginie daal di annulé voyage am mais Virginie daal na ko def mais est-ce que loolu di relever ay question ci xelu Idi muy naan pourquoi ma jaral euh, Virginie mu daal di annuler voyage am boobu ñu daal di jóge foofu daal di wax ci ki nga xamante ne mooy Leuz gis nañ ne Leuz moom état wam moo gën a grave parce que euh, tànkam damm na ci mais xaritam yooyu nga xamante ne ñooy Toch Matar ak euh, bi gi ñëw nañ seetsi ko waxtaan ak moom foo ak moom réew ak moom ba xelam daal di daal Idy tamit daal dina ci def euh, ci bés gest bu rafet defal na ko geste bu rafet parce que Idy mën nañ ne moom aussi il est jeune papaam ba muy dem jox na ko xaalis pour argent de poche au cas où am urgence mais xaalis boobu de Idy mënoon na kaa utiliser ci fond ci caaxaan mais dégg na li nga xamante ne moo jot a xew entre papa yi leuz ak leuz yëpp affaire volu xaalis beeg problème hospitalisation bi ñu war a fay yëpp loolu daa daal di tax mu daal di yëkkati argent de poche am boobu noonu daal di ko jox leuz loolu nekk loo xamante ne c'est vraiment de l'émotion daal dina jàpp leuz bu baax parce que il ne s'attendait pas à ce que xaritam euh, boobu nga xamante ne mooy idi daal di réagir noonu loolu nekk geste boo xamante ne macha macha allah geste bu noble la te ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel parfois nga yor loo xamante ne tey peut-être euh, pour euh, régler say quelques trucs la nga gis sa morom am urgence boo xamante ne mënu koo ñàkk a régler nga jël loolu noonu jox ko ko bu ñëpp doon doxalee noonu je pense que aujourd'hui beaucoup de gens yoo xamante ne ils se trouvent dans des problèmes du nekk si yenn problème yi wala seen problème sax ma ma leen di laaj yéen sama gars tey boo leen nekkoon Idy nan ngeen xaalis boobu noonu daal di ko denc di xaar urgence wala tamit da ngeen di gis urgence boobu nga xamante ne moo nekk ci kaw leuse ngeen jël xaalis boobu daal di ko koy jox ndax mu mën cee régler au moins tuuti si li nga xamante ne mooy ay problème am ma leen di laaj tamit tey geste boobu nga xamante ne moom la Idy def nan ngeen koy qualifier d'un geste noble wala geste bu humble geste bu baax wala tey Idy daf koo def juste pour wan leuse ne maa la ëppale te mën naa laa jàppale bàyyi vidéo pour yéen ñi nga xamante ne nag euh, da ngeen am envie daal di def snap wax seen avis ci série bi ngeen daal di def seen nag wax seen avis ci série bi envoyé ko si numéro boobu nga xamante ne moo nekk ci écran bi ñu daal di pare foofu nag wax ci kan Teuch Biggy ak Matar gis nañ ne de bi ak Biggy ak Matar di ñibbi euh, benn euh, ay euh, journaliste ñu ngi leen di xaar si yoon bi parce que carrière Biggy mu ngi commencé am ampleur Biggy ñu ngi koy bëgg a xam ci dëkk bi dans le monde du sport c'est-à-dire ci lamb boobu nga xamante ne moom lay kii nii activé wu mooy lamb bi nga xam ne moom la defoon fële ca Somone topp na ko ba biir Dakar parce que promoteur yaa ngi koy wër journaliste sportif yi ñu ngi koy wër ba daal dina def daal interview bu nice nice nice macha allah wax na si loo xamante ne am na solo lool mais tamit fàttewu see wax ne tey moom jàng bi lay bëral parce que am na envie doon dara si li nga xamante ne. mooy li nga xam ne mooy jàng bi nga xam ne ci la nekk mais aussi éviter naa def euh, gaffe c'est-à-dire erreur parce que am na réponse boo xamante ne question boo xamante ne tey journaliste yi posé nañ ko ko nangu ci woon répondre pour une seule raison parce que papaam daal dina jël décision daal dina jël avance bi daal dina signer combat pour Biggi ba pare ma leen di laaj tamit nag boo leen nekkoon Biggi da ngeen di dem bëri ji bëri bi nga xamante ne moom la papaam signé ba pare wala dangeen di bañ daal di continuer li nga xamante ne mooy seen jàng euh, ma leen di laaj nag loo leen ci xalaat ban conseil mooy bi nga xamante ne moom ngeen di jox kooku nga xamante ne mooy Biggy parce que soxna ko soxla na ko lool tey parce que moom moo ngi nii il est entre lan entre combat bi nga xam ne papaam daal dina ko signé ba pare ak lan euh, li nga xamante ne mooy jàngam bi nga xamante ne moom la bëgg a ci c'est-à-dire bac bi nga xamante ne moom la bëgg a décrocher ba interview boobu noonu parewee euh, ba tëccu di ñibbi daal dina dajeeg euh, Kati Kati macha allah xale xaalis bi rafet kaar macha allah daal di bëgg tëcc lool daje na moom daal di ko ne na ko yóbbaale da koy dafa bëgg yóbbaale tëcc nag xam ngeen dafa bëri affaire bañ Kati daal di nañ ànd ci oto Kati mu daal di ko déposé foofu nga xamante ne mooy seen kër ah ba ñu wàccee nag si euh, koñ ba parce que Toch ñun ñëpp xam nañ ne nekk na koo xamante ne amul si famille boo xam ne amuñu la bokk en plus quartier bu mu ndëkk mooy quartier yi nga xamante ne mooy euh, yenn quartier yi nga xam ne dañuy taa rek bidonville yi li ñuy woowee bidonville yi nii ci yooyu la dëkk mais pourtant amouru kat yi tax na kat yi mën koo topp ba foofu comme ni ñu koy waxee rek nit ki bu la bëggee boo dëkkee si mbaar sax elle veut loolu moo dal ki nga xamante ne mooy si Sitoche parce que Cathy ñàkkul dara namul dara elle est belle ses parents ont de l'argent elle respire l'argent et pourtant kan la bëgg kooku nga xamante ne mooy Toch nga xamante ne peut-être mën nañ ne xale bu am jom la xale bu xam lu mu bëgg la xale bu bëgg yaayam la mais pourtant on peut aussi que ne touche amul mais kat noonu la ko bëggee ba ñu wàccee ci koñ boobu nga xamante ne nag euh, koñ boobu demewul noonu droowul ak koñ ñoom kat yeeg yooyu ñëpp daal dinañ leen teg seen bët xale yu góor yi commencé di wokkante touche mi est-ce que amul lu muy laal gis ngeen xale yi muy fréquenté day dem ba école yi di wuti ji genre xale yi nii yooyu yëpp ñu wax ko ci. ba yaayu Toch sax ba mu gisee kat dafa jaaxle ba dinaan euh, Toch làmmiñ baaxul te loolu noonu sax mën nañ wax ne c'est parce que parents yu bëri buñ ñuy naan làmmiñ baaxul dafa am lu tax ñu koy wax parce que gis ngeen làmmiñ ci lu mu jiitu rek du antu donc euh, mën nañ wax ne tey Toch ak Kati seen relation moo ngi avancé parce que yaayu Toch bëgg na Kati bëgg na ko lool est-ce que loolu tamit taxul kat yi gën a am euh, chance conquérir ki nga xamante ne mooy Toch. mënuñoo wax nag ba pare te waxuñu ci li nga xamante ne moo xew entre Matar ak Toch parce que Matar jaaxle na lool d'après erreur bi mu defoon dem su daal di fen papaam fen seen waa kër loolu tax seen waa kër mere ko lool yaakaarul ko jàppale keneen ku dul dem na wax Toch problème moom Toch ànd na ak moom daal di def geste bu noble geste boo xamante ne képp ku am xarit loolu lay xaar ci xaritam xarit loolu lay jëriñ xarit da ngay am sa problème mu mën laa taxawu nekkul juste dans les bons moments la war a nekk ak yow ngeen di blow di foo di ree di dund lu neex mais xarit dafa war a nekk koo xamante ne tey boo nekkee ci ay problème wala nga nekk ci mu yaa ngi ci erreur nga nekk ci ay problème mu daal di la jàppale ci problème yooyu noonu ba nga génn ci toch nag daal dina def yëfu xarit ànd na ak Matar ba seen kër waxtaan ak euh, magam bi magam bi nekk magu Matar bi nekk koo xamante ne macha allah dafa estimer Toch ndax jomam ndax euh, am fula bi mu am fula ak euh, bëgg euh, àddunaam bi mu bëgg àddunaam bëgg koo defar bëgg defar sax laay wax àddunaam bi mu bëgg a defar àddunaam tax na tey magu Matar boobu noonu am na respect lool si ba déglu ko ba mujj na sax baal ki nga xamante ne mooy mataax Matar am na chance su reprendre li nga xamante ne mooy foot bi te xam ne erreur am te pare na aussi tey pour euh, relever défi bi pour que magam kontaan ci moom papaam kontaan ci moom parce que mën nañu wax ne tey bu ñuy daw. di seen di sonn ci situation boobu nga xamante ne mooy affaire de foot bi nga xam ne ci lañ bëgg Matar réussir faut Matar la d'abord avant ñoom parce que pour ñoom tey bu Matar réussir ci foot boobu nga xamante ci lañ ko dugal ñoom dañ ciy am fierté Matar aussi avant ñoom ñu ciy am fierté moom dina fier ci boppam après nag euh, ñëw ki nga xamante ne mooy idi que ñoom euh, Virginie daal dina bett Virginie parce que Virginie ne s'attendait pas à ce que Idi ñëw seen kër mais li ko gën a bett du loolu li ko gën a bett mooy question bi nga xamante ne moom la ko Idi posé lan la ko Idi laaj di def ko ne est-ce que man maa tax nga annulé loolu nga xamante ne mooy sa voyage bi Virginie daal di tiit amul réponse d'après yéen Virginie dina ko wax dëgg bi wala du ko wax dëgg bi soo leen nekkoon Virginie noo leen di réagir ak lan ngeen di conseiller Virginie mu wax ko li nga xamante ne moo am wala mu daal di ko nëbb ba si kanam à vous d'en juger bàyyi leen seen euh, réponse en commentaire si vidéo bi pour yéen ñi nga xamante ne rek comme ni ma leen ko waxee woon am ngeen envie wax si série bi si benn. commentaire ci vidéo bi pour yéen ñi nga xamante ne rek comme ni ma leen ko waxee woon am ngeen envie wax ci série bi ci benn vidéo ngeen envoyé ñu ko ci numéro boobu nga xamante ne moo nekk ci écran bi merci pour yéen ñi nga xam na ngeen di doog a ñëw ci chaîne bi nag abonné leen appuyé leen ci cloche de notification bi pour que bépp vidéo bi ñu dugalati ngeen daal di ko gis à